taalib yëpp ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, di nuyu bu baax sunu mbokk mi sëriñ Cheikh Abdoul Ahad di sunu xarit it euh, samay wax nag ci ndaje mi mën naa bañ a gudd kàddu yu gàtt rek lay doon. mu mel ne ay borom xam-xam àddu nañ léegi jëmee ci thème bu am solo rawatina ci waxtu yi muy politique ak l'islam wala waruma di dëkk bi yàlloo ci ab taalibe bu taamu Touba ngir dëkk mu mel ne politique mbir la moo xam ne ku ko bañit yaa ngi koy dund waaye bari na ñu ko gedd ngir anam yi ñu koy jëfe ñu ngi koy pratiquer loolu buñ ne wax ne politique baaxul ci jëfin wi waaye du baatu politique moom lañuy ñuy bonal loolu boroom xam-xam yi waroon nañ ci taxaw tuuti ab seetlu ndax baatu politique lenn la ci jëfin wi meneen mbir la mu mel ni jëfin wi amut lenn loo xam ne ci niñ ko aadowoo di gisee ah mën na nes koo dëppale ak lislaam ndax mbooloom góor ak jigéen mu daje te bu ñu waxee li ci ëpp du ñu wax lañu nar bu ñu waxee lii dem deflee loolu lislaam bëggu defe naa bu ñu dee gedd politique looloo tax waaye du jëmmi politique ndax ku ko bañ politique ku ko bañ yaa koy def mu mel ne kon jikko koy ña koy def lañu ñu xeeb ña koy bañ loolu la ñu bañ amaanaa waneen tëgginu politique bu bees boo nga xam ne dana dëppoo ak gëm-gëmi nit ñi seeni pas-pas def naa ku ko njëkk yëkkati nit ñi topp la ci waaye nag ala kulli am na loo xam ne jàpp nañu ne ah du doon lu nga xam ne ñëpp dañ ci mën a adhéré ñenn ñi rek ñoo koy mën a topp ñi ci des mën a topp la neen kon loolu buñ dee jàngale politique ak lislaam dañ caaw dañ ko war a xóotal dafa day lu am solo ndax politique day lu mënul ñàkk ceet ñu am nu ñu ko tëggee nu ñu ko baaxoo xam ñu xam ne noonu suñu génération bi yëpp ci lañ ko jànge ñu gis ñu koy def ku xamutoon politique yi see ko noona da ngay jàpp ne politique kon du lu baax defe naa loolu rek la mu mel ne barab bii nag ñu woote tey Daaru Xuddoos la di kër sëriñ Touba kër gii sëriñ bi jaamu yàlla rek moo taxoon mu sàkk donte ne dëkk bépp sax waaye particulièrement kër gi nee nga fii la njëkk a gisee yonent bi ci jàkkee Daaru Xuddoos ji la ko gisee ba tax na wor ma jooju ñu wax ci Touba fenn wër fii fenn wër bu cee jiitu loolu it ñu ngi koy xamal mbokk yëpp ah sunu mbokk mi nag ñu ngi ko ñaanal mucc yàlla defal ko ndam ci li muy yëngu ndax xam nañ ne askan wi moo ko tax di yëngu ndax bu dee boppam rek la yàlla teral na ko ba mu daatan gane àdduna waaye nag gis-gis la am am droit it topp gis-gisam ci lu wér euh, waaye it ñu kenn ku nekk sañ na am gis-gisam ci mbir mm. loolu it kenn ku ne war na ko nangul morooma amaanaa war mooy dëkk bi nag ci jaxase ak xuloo xeex loolu moom kenn sant ko kenn yàlla nu ci yàlla musal ndax mbiri saytaane la te saytaane kenn du ko yee kenn du yee fitna wasalaamaaleykum wa rahmatullah loolu rek la amoon ci jërëjëf